téeméer ñaar fukki at ak ñett ci ren ñuy màggal tukkib Serigne Touba ci géej gi 18 safar 1895 la woon dëppook ci atum Égypte magalu ren gi dëppook juróom-ñetti fan ci weeru novembre atum 2017 ñuy màggal tukkib Serigne Touba ci géej gi Touba di doon Carrefour ay nitu diine di fi daje Dakaractu di leen ci gunge ci ay reportage ay plateau spécial ak ay entretien jëm ci waxtaanu màggal Touba gi 123e édition màggal Touba Dakaractu di leen ci gunge di leen bëral lépp luy xibaar jëm ci màggal gi édition 2017 safar